tire à tey la dernier numéro. Mhm. ñu ngi lay jaajëfal mais dernier numéro bi dafa am euh, ay image yu ñu ci marqué quand même. image lan ay image yu rek xoolal kii non non je porte plainte. te nugu quoi. ana laa fa gi. tey indi naa ko. laa <laughs> fa moo may moo may jàppale de. waaw waaw waaw wala ma teg ko. Ah, ah rafetoon na de. rafetoon na de loo ci def rek baax na. waaw ah, moom doon dimbali de. ci seddaay bi. sànq ba léegi kenn seenutoon sa nopp yi. <laughs> seddaay man seddaay ba gis man seddaay moom si si bopp bi lay commencé jëm ci suuf tàng yi. waaw waaw ngi yooyu. moo tax moo duggee si jàkk ji. waaw waaw xool fu gën a ruqee ma toog. waaw bi mm. ak uh, kii. ak lay bopp waaw waaw ah, waaw. balaa balaa. kii waaw kan ma ci nekkoon Mor Lambe. Ah. boobu baal bu ma bu ma yàq noonu bàyyil noonu bàyyil si diamétralement opposé buñ toogee boo koy wax sax da koy dem sax vraiment da ngay bëgg a jooy sax quoi. sama rongoñ sax da nga gisul rek mais sama rongoñ ngi tuuru. c'est sûr naka nga mën a nekkee benn nit am milliard. ci jamono ji jël Sénégal yaa ngi nit c'est ñu jàll ci culture léegi léegi ndax moom bëgg naa ko. mais sëñ naa war na di wax lu ko metti ngay ne de. non c'est dommage c'est dommage. Eh, léegi yow. mais est-ce que stade yooyu respecté nañu normes yi. oui est-ce que stade yooyu pelouse yi baax na. boo duggee seen vestiaire yi bëgg a wàccu. Mm-hmm. mujj na dama bu ngalandu Diouf bu tëngee boo fa duggee bi daax nga feebar <laughs> kii 5 mois. c'est écran quoi. mu jëm saa ma ne bu sama ndey. dëkk ba yàqu ci na. Augustin tojjati na dëkk. Eh, mais ça c'est quoi. <laughs> deux forfaits. bu trésor. gannaaw xaw ma kan ni ñu seet ñëpp. ay al toppe lañu rek. <laughs> finalement nag man li pour euh, euh, dem ak yéen ci petit déj ba 11h incha allah elle me fait un petit coucou. pour la première fois nga teel a ñëw. la première fois <laughs> de l'histoire ñu teel a une très bonne. <laughs> ah xanaa du ab colin. mais ko original ah xanaa du ab colin. yow laa wax lu duggal ci lii xam naa ne colin la di suñu colin du ma ci boobu nga kii. dañ cee wus sa ma ne ma ne ma ne ma ne ak ñëw waaw. gis <laughs> nga yàlla yàlla defal la cat man du ma sàcc bi waaw de bi. Eh. kii nag mooy borom matinal moom dafa ñuy ak voleur de bi. il est quel voleur de bi. mais on le la maison. mu ngi on connaît on voleur de bi. Ah on le connaît voleur de bi. <laughs> on connaît le voleur du stylo dans cette maison essayez. c'est Pierre et toi. yaa ma tàkk waxuma ko après nga jaar bureau. <laughs> est-ce que xam nga ne Cheikh Tidiane Gomis. man moo fi gën a néew le passage te moo fi ëpp bêtise. Euh, donc Seydina Omar Ba. kii Ouma Serigne. non man fan man non man je suis sérieuse. non Serigne kii euh, euh, demande <laughs> <laughs> jaar mais Serigne lan moo tax yow jëloo Moustapha yi. waaw waaw waaw loolu moo tax man de man damay plainte. je fais pas de bêtise jàpp ne ma lu mu demoon ah. def <laughs> boo ma neexalul yow. damay génne yi ne sama téléphone. Eh, eh. et eh, bu sànq bi eh. xam naa jël nañ ko. bu sànq bi ko génne de jëru ngay góor. <laughs> mënaat nañu nee na ku génne jëru ngay xëy si. ab Ablaye Xaasim jot nañ digal ku ko génne jëru ngay xëy si. jëru ngay xëy si. production lay joxe ci lañu en tout cas jaajëfal j'espère que dégg na la jaajëfal en tout cas Moustapha toute l'équipe de Réveil depuis euh, euh, bi ba mu xaajee la ñu émission mais boobaak léegi dañu koy liggéey si euh, jàmm tey nag moo nekk dernier numéro de l'année on espère revenir en force en 2024 yeneen nouveauté ak yeneen i surprise yoo xam ne dañu koy dolli ci émission bi lépp rek ngir bégal moom dong mooñ tax a jóg di jaajëfal nag téléspectateurs yi bu baax a baax ak suñuy internet nga xam ne Euh, euh, teel a yeewu jënd seen i connexion jàpp euh, live bi di ñu dooleel bu baax a baax a baax gis nañu seen jàppale Moustapha Diop. non mais juste rek ma ne c'est l'occasion de rendre hommage à Awa Diop Ndiaye. parce que réveil est sorti de sa tête. oui re. éveil est sorti de sa tête allah et c'est elle qui a travaillé sur le contenu de l'émission teg ko suñu loxo ñu koy dérouler te moom mosu cee feeñ mhm. te mosul taxaw fenn ne man maa ko def franchement elle a été mhm. crucial dans mhm. cette affaire. Ah et je ah tenais mhm. ah teg la bu bu baax a baax a baax macha allah euh, di ko jaajëfal moom sama maman wu bopp la euh, aw Diop Ndiaye euh, jaajëfal également coordination bi réalisation bi Seydina Omar baax wax dëgg neex yàlla tous les matins il coordonne tout bu ñëwee di teel a yeew ku ci nekk moom moo lay yee wax la li nga war a def et fi nga war a jaar Pierre Edouard fay bu ñu nee suba la émission bi. dix heures ma six heures du soir lay commencé di la wax émission bi li ci war a am mhm. ñu ngi koy jaajëfal lu baax a baax ci réalisation mais jaajëfal également la partie technique merci à Serigne Alioune Keita qui se lève encore tout le matin pour def lépp lépp ba lépp yemb ñun ñuy wax ñun ngeen di gis mais moom quand même il fait un travail exceptionnel mhm. vraiment aidé par euh, Pierre ci wàllu son bi te Adjaratou Penda Diallo Gueye qui vient euh, l'épauler Isaaxa Diagne également ci équipe bi jaajëfal bu baax a baax Adjaratou Penda Diallo Gueye sama ex xarit mais nag di jaajëfal Bintu Fall bi nga xam ne dafa rejoindre l'équipe de réveil mm. mais day ruube rek 6 heures du matin lay commencé jaajëfal leen ñëpp ci topp geeg ta teewlu gi caméraman yi ñu ngi leen di jaajëfal fàttewuñ leen Pape Modou Faye euh, Pape Gora Gueye tonton Saliou Bey euh, ñoom Kéba oui lu Louis lu Louis Faye voilà inconditionnel sama caméramanu bopp la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mënu woon ñàkk ñu def ko parce que l'année tire à sa fin kon lii rek la ñu mënoon am muy mot de la fin ngir ma leen ko jagleel tout en vous donnant rendez en le P24 à Walf TV ça sera du lourd inchallah merci à nos téléspectateurs auditeurs et lecteurs du groupe Walfadjri ñu ngi leen di jaajëfal sa euh, Awa Condé arrête de dormir et réponds à vos téléspectateurs à vous maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Aïcha <laughs> waa kii du borom anniversaire bu neex bi. waaw <laughs> bu riche bi